matale ko te ànd ko di ko ñaan ci këru tarixa diine yëpp suñu borom yàggal leen kàttanal leen te doole leen ko yéeni ko ñëfam ci seen yoonu maam sa yi nga àndal ñëpp di baalu ñëpp àq te di leen baal àq jërëjëf alors euh, délégué félicitations encore merci beaucoup merci beaucoup à toi merci beaucoup am soxna mais maanaam xanaa koy dégg non fii sax kon Cheikh Ahmed Cissé am naa lu ma dégg mu wax de kon. bon loolu pour a yàq sa émission ndax bëgg naa defal émission boo dina ci jàngat àdduna. moo tax loolu si bi la non non non. am na lu si amee non non non yoo xamante ni boo leen tuddee ci émission mais lan moo tax nga tuddee ko hypocrite. da ngaa wax sa émission bi ñu ngi fii di teel. ci émission bi la amuñu jotu kooku. saa yi ñun ku nekkul ci réew mi dëggaloo su bopp ci réew mi amuñu ci yow soxla. mais moom fi mu soxla dëgg la dëgg la. déggoo ma de saa waay ne ñun ku dëkk ci réew bi dëggal boppam ci réew mi assumer ay responsabilités ci réew mi kooku lañ am sañ-sañ waxal man de maa ngi ci réew mi. mais tuuma yi ñu teg sa kaw loo ci wax. damaa gën yonent bi. Hmm. non non gën sëñ Tuubaa. gëmoo dama leen gën yéen ñi ay doomu aadama lañ comme comme yéen ñi. Hmm. te mu teguñu la tuuma yow. bari na kon jeex tuuma kay as gor rek lañ koy teg. waaw <laughs> d'accord euh, mais euh, il faut que ñu waxtaanee li nga xamante ne moom moo ñu fa dajale ñu ñëpp. Mhm. muy le cas de monsieur Doro Gueye. am mhm. Doro xam na ak ak parce que boo xoolee bu baax sax bu may ko dañ ci gis photo alors fàng waaw jëlal ma nga nee na donc euh, sama nit la après gars ko jël xam naa alors mhm. arrestation Doro Gueye ndax ko donc maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp sama benn jigéen bu nekk Paris moom moo ne mais damaa gis sa xarit bi ki ngay dugal statut rek ñu di dañ ko arrêté mën nañ ko arrêté mais kooku mu ngi woon mu ngi woon Paris mais ñëw na bërki démb arrêté bi weekend bi la di arrêté bi mu demee noonu mu ne ma noo xoolal benn site bindu bu tudd Dakar ak ci xawma ma dugg gis ko ma gëw ma tamit quoi ma am ku ma mu ma dëgg la ci laay doog a nag affaire bi ma taal sama dem fële nga xam ne di Colobane section de recherche xooli ko yàlla dogal ne amuñu woon pour mën ko gis ndax gendarmerie moom boo xasee ba yor dossier enquête pour nga gis ki nga xam ne moom la ñuy day jafe ndax ñoom dañoo sévère te dañoo euh, dañoo xarañ ci li ñuy def daal maanaam gisuñu ko ma ñibbisiwaat bi ma xëyee ma woo ki nga xam ne moom it joxoon information ne ko may dëgg la mu wax ci wax ci rafet moom it te kooku man moom ñi nga xamante jàppale Ousmane ko muy soxna soo xam ne ku bëgg son Sonko la nekk ba Paris di jàppale Ousmane ku ci lu bëri bi loolu amee ma xëy suba tamit gis gaa yi ci internet bi ku nekk di dugal fenkat yi nekkee fee xotteekukat yi nekkee fee meewkat yi nekkee fee nekk di wax loo maîtriser ci dossier boo xamante ne nii sax enquête bi jëmagul ci kaw ah am na journaliste yoo xamante ne nii que sax ña ngay wax ci dossier boo xam ne enquête bi jëmu jëmagul kaw nit ki biñ ko jàppee bi mu fa demee léegi matagul quatre heures de temps nga bëgg a wax ba ci biir dossier bi loolu kuñ jàpp di la enquête te defagoo sax deux quatre de temps ca fañ la jàpp journaliste yi génn am ñoo xam ne di génn di ndellee ko rek naan lii la lii la lii la te lépp ay fen ñu defaraat jikko yi mais ñoom ñoom plainte bi la ñuy waxee délégué. non non parce que li nga xamante ni moo waral plainte bi. plainte kaay ma wax non plainte nag kaay ma wax la. Mm. plainte ka ko bind. Ah. at at at kam ko jox rek ka mën a xam ne ci plainte bi. journaliste am na am na pour euh, am source am. génn génne leen ko non non non pas ay source génne la ci plainte bi nangam nangam xam nga ñi ñi wax waxuñu sax la ci plainte bi. lan la ñu wax. ay waxi dof rek lañ doon wax. muy lan jàpp nañ ko sàcc na ay suufat nangaman nangaman nangaman nangam te yooyu yëpp c'est faux pelante dafa am ci digënté parti civil ak parti civil ñaari parti civil do du affaire ñu am nañu sax ñoom affaire de état ñaari parti civil la yu sék seen business yoonu état nekku ci am déet mm-hmm. bu fekkone yoonu état mo ca nek dañ nan kon de ki suufu état bi dal jël nako jaay nañ ko xaalisu état bi jël nañ ko jox ko mais nit la amal pérénal koku am sañ-sañu dem porter ko plainte jël na ay dossier dem na def li nga xam ne yoon may na ko muy porte plainte fële ci gendarmerie gendarmerie tamit ñëw nañ def seen seen liggéey mooy lan fekk nañ ki nga xam ne moom lañ porte plainte jox ko convocation boo xamante ne nii que ci tàng bi ngay wuy ji loolu sañ-sañ boobu xam ne man loolu def nañ ma ko mandat damane lañ koy wax maanaam kut koo kut da ngay joxe ñu joxe nga signé am ak ñoom dem jox ko waa ñu jox ko mu dem mm. wuy ji mm. waa léegi ka wuy moom ma nga ca biir kenn mënu koo jot téléphone ñun mënuñu koo jot téléphone am na ñoo xam ne sax munuñu koo jot téléphone léegi bëgg a xam la ca biir dossier ba nañ waxtaan dëgg rek kàllu nag nit loolu nekk nekk journaliste am na yenn secret yoo xam ne enquêteur du ko génne di ko wax mais PV bi journaliste mën na si jot délégué. xanaa bu demee tribunal bañ àtte ko wala nangam ñu tax PV bi sa nangam amul amul benn PV boo xamante ne nii ko que homme d'affaires wala PV civil sax maa koo xam ne maanaam sama genre bi sax sama PV yow sañ-sañ dem di ko vérifier di xool non sama avocat bi sax amul sañ-sañ bi ki la yóbbu amul sañ-sañu dem di vérifier sa PV xanaa ko mooy sa yoon tamit yéen sa galo jàng nga. moo tax ma lay wax loolu. moo tax ma lay non non non non non non loolu amul fenn. journaliste amul sañ seni, eh, dem tekk PV waaw kon journaliste ëpp doole les enquêteurs yi kon journaliste avocat la rek léegi nan lañ def ba xam li nga xamante ni problème bi am si diggante Doro waaw mais c'est normal parce que tey su fekkee ne man avocat Doro la am mhm. am samay nitu Doro Gueye yoo xam ne ña nga fa ma dem fekkee mbir mi ma génn wax ne la galo de ah sa waay de lii lañ koy toppee lii lañ koy toppee kama ko wax bu def fenkat la day génn wax ko wax kon daal yow lañ ñettali ay fen la non dama ni tey jii bu fekkee ne dañ ma dañ ma ah, ah, ah, avocat Doro Gueye dafa génn ne Doro Gueye waaw Doro dañ ko jàppee lii àlli wax ko benn nit nit kooku wax ko keneen waaw kooku bu nekkee day tas kon kay bu liñ ko jàppee non non non non la ko jàppee du yoon de waxuma la liñ ko jàppee dama ni am journaliste yoo xam ne wax nañ loo xam ne lépp ay fen la waxuma la liñ ko jàppee de d'accord affaire de terrain mm-hmm. nit la amal problème ci mbirum jënd at yaay kooku mu amal problème nag lenn dong lañ ci man mooy ñaan ko li nga xam ne moom am na ci droit mooy moom am na sañ-sañu toog ne nañ ma jox temps desel ma temps ma retiré sama plainte ñu def ko ñu defal ko loolu mais nag yoon du te yoon bu fekkee yoon day def liggéeyam ci kaw Doro Gaye da koy def kenn mënu ko koo tere waaye yoon it am na sañ-sañu jël Doro Gaye may ko liberté provisoire ànd ñaar bi ci li mu wax kon ci li ñu wax ni Doro dafa jéem a fexe avant cinq cent millions pour après mu joxe le lu am noon non non non gis nga man xawma ci loolu dara ndax amul bu fekkoon nekk dooro dañ xaalis bii bu ko joxee ñu bàyyi ko wala nangam du fa fanaanaa tey am na ay nitam yoo xam ne jinne leen daraanga am na maanaam laa cité benn tur ba depuis démb waalee ngi foofu depuis démb laa la wax waalee ngi euh, gendarmerie jóge gendarmerie tey waale fajar la dem nenuwul non la kon ne dem tribunal man na wone sa wali mo jitu sa dooro gay tribunal tay bu fekkone dañ ni tak ah gay li temps la temps mo koy kii nañ ko génne dooro gay du lan sa xaliss duñ duñ sax soxla xay ñun ay nitam man nañ ko dajal joxal ko ko ci ni ñeké xaar nak yoon nan lay doxalee ligéel ndax yoon kenn du ko jitu ci ci xawma la la la parce que nak nit nak pelegna man na la baye retirer pelantam ngeen tek lu leer mais lu tee yoon man na def ligéel mais na ci kaw yoon googu ñun ñi nga xam ne ay nitam lañu sañ nañoo ñaan plaignant sañ nañoo ñaan yoon ay jullit ay nit lañ te nit bu tooñee am na droit sañ-sañu ñaan jàpp moom moo tooñ waaw mais tooñ la kay ah, loo ko bëgg a nit nit ki ne xaalisam nangam a nangam yow mi boo ma jaayoon sa micro bii nii nii mhm. ma lekk sa xaalis boo ñëwee fayaguma te joxuma la boo demee ci yoon kay sëñ bi maa tooñ tooñ gi mu tooña tax gaa yi téye ko di mhm. bu tooñu woon est-ce ko téye léegi dañoo gis benn chèque boo xamante ni euh, un milliard deux cent francs la donc ñu ne Doro moo ko signé mais waaye bi ñu demee di retiré xaalis bi. chèque bi turu kan moo ci nekk. waaw chèque bi gis nga ko. non turu kan moo ci nekk. non man maa lay laaj doo ma laaj. non dama lay laaj man xawuma lu turu ko ci. turu Doro moom moo ci nekk. turu moo ci la carrément. waaw chèque moom chèque dinañ ci bind un milliard. ndax ah, doy na waar moom lañ gis de. waaw ah, loolu moom sa xunta xaw ma ci lu. sa un milliard moom bari na bëri un milliard deux waaw bëri na bëri koo xam ne ah. doy na waar mais man li may mën a wax dalo mooy ñoo ngi ñaan ki nga xam ne moo di plaignant bi hmm. ak ki nga xam ne moo moo fi téye moom moom justice kii kilifa la yàlla moo ko def du ñun ñoo ko def hmm. yàlla moo ko seppi def ko muy kilifa am nañ sañ-sañu ñaan ko hmm. li nga xam ne yomb na ci ñoom ci seen liggéey ñu may nu ko defal nu ko mooy lan nan ko may li nga xam ne yoon may na leen ko ay ay buntu lu yu bëri yoo xam ne yoon may na ko nit ki mm-hmm. mu dem ñibbi ci ak njabootam continuer liggéeyam ak ñi nga xam ne amee na leen ay ay ay salaire di leen ko fay ñooñu tey bu bu fekkee ne que am na gàllankoor bu tegu ci kawam ñu téye ko amaana ñu seen tumuraanke mën naa taxaw. Mm-hmm. alors dañu dégg ci wax ci aussi euh, ñaari terrain la yoo xamante ni dañoo nekk fële ca ginnaaw aéroport bu njëkk ba déjà foofu suuf si rek c'est ça coûte trop ñu wax que ni li ko enquêteurs yi laajee dafa wax que ni président Macky Sall moom ko joxoon pour mu jaay ko mën a def ay li nga xamante ne mooy mission secrète d'abord euh, mission secrète jaaxal Sénégal. yow yow xam nga luy mission secrète loolu moo ñu jaaxal mission saa yéen man daal vraiment sama journaliste yi daal man vraiment xamatuma ban genre niveau ngeen am. est-ce que doo ñu xamal xaw am. xamal ñu rek non mission secrète xam nga mooy lan la. secrète secrète. xanaa xamoo ne ñi mission secrète état bu fi mën di toog sax day liggéeyal yow. Hmm. ah mais ci kan la koy liggéeyal. non dama ni ku ko doon laa la wax. mais ci kan la koy liggéeyal xaw ma ku ko doon man xaw ma lu déggoo ma de. <laughs> tey jii bu ngeen toogee fii naan enquêteur bi dafa jël dafa wax ne que nangam ak nangam yaa ko dégg ci gémmiñu enquêteur bi. mais dañu am ay sources. non non non bàyyi leen ay sources bàyyi leen ay ah, benn gisu leen benn enquêteur non non gisu leen benn enquêteur bu génn na leen. bi ma ko jàppee nee na lii lay liggéey non non non ah. nañu waxtaan dëgg te yàlla non non non gisoo leen enquêteur non am na loo xam ne tey am na loo xam ne non même ma daaneel même ma leeral la tuuti dama lay dimbali tuuti rek ba ma lay <laughs> dimbali waaw suusi boobu nga am dama lay dimbali waaw suusi boobu nga am suusi boobu nga am ay fen la ay kàcc la suusi boobu ay fen la ay kàcc la yow ah, nooy jàppee nit mu naan la ay agent ah, agent la lan euh, lan secret lan mission secret xoolal yëfi caaxaan yooyu nga xam ne le petit journaliste la gel boobu moo koy nekk di ndelee ko boobu ba léegi di wax rek. mais ngoone yor ay sources. waaw waaw il est. mais loolu la non non non non non déglu ma rek non non non non sama waay sa waay ñun ay nit lañu. mais lan moo tax déglu ma rek dañoo jàpp nit ki waaw déglu ma rek dañoo jàpp nit ki ci mbirum jënd ak njaay waaw léegi ba muy jënd ak njaay papier yi ñu signé turu Macky Sall da daa nekk ba ci duru Macky Sall ne ko est-ce que peleñaa bi du boole Macky Sall ci pelente bi mais ku ko jox suuf si wow oh, déggoo ma de déggoo ma de man suuf sanu jaayat sama kër lañ jaayat sama ngañ ñi nekkul ci loolu waaye dama bu fekkee nekk laa wax benn ni moom moom moo ni Macky Sall ca la bokk waaye léegi lu tax peleñaa bi boolewut turam ci Macky Sall boolewu ci Macky Sall ah man soo ma soo ma doon jaay terrain Macky Sall ma terrain ne la demal jaayal ma ko bu ma demee di ko jaay que turu Macky Sall dina ci nekk de ci kii bi contrat bi ndax dina ni ko Macky Sall moma ma jaayloo terrain bi nanga na naa sëñ bi nañu waxtaan dëgg te yalla tax mbirum terrain jënd at njaay lamu mu waji nak ji ba ba seqal ci mbirum jënd at jaay ñom ñaar la concerné waye nak ñun yi nga xam ay nitam lañu sañ nañu tok ñaan ki nga xam mom la amal jafé jafé te nak gaay yi ko yéene li jomul kenn de le petit journaliste la idiot la na xam li lii ko de li jommu ko as gor ab doomu adama du yéene moroomu doomu aadamaam safaan ba saway fi ku fi nek ci la nga nek di def ya ngay dóor mom amena ay bor. am nga fi de si non déglu ma rek dama ni man samay wax la wax samay wax la wax non samay wax la wax de tuduma la ma samba tuduma la ma dem. mais say notice conseil non non non euh, déglu ma de. non déglu ma tudd yow ya fi tuddu turu nit de. samay samay wax la wax galo wa yow ya ko bëgg a jël wax ji moom la ko yeen yéen ñaar la concerné dedet yeen ñaar rôle du taalibe yeen ñaar la concerné tay yow buma la xamé ak xam la ni ma la xamé amna yenn kaddu yo xamne jom nga ko génne di ko ci ab waxuma la jullit waxuma la sax ay jullit doomu adam parce que soxol du ag foofu nit man na def jafé jafé nit ku nekk ci la ngay liggéey bu la ci yalla tegee nattu échec la jafé jafé ku ne lay dal han ah? président jomay ci limi muy liggéey di politique ci lako ko yàlla tegee nattu ko jox ko grat am det wa mais da ngeen fekk door ñu japp ko ci door da ngeen fekk ñu jàpp ko ci ñu def ko ci nangam lan lañ ko jàppee da doon business ci ay business am affaire de suuf jënd na jaay na nangam ak nangam un milliard nangam sangam sangam loolu ku ne lay dal nattu nag ku ku jàpp ne yaa koy teg doomu aadama bi yaa ngi nax sa bopp yàlla mooy jël nattu teg ko ci kaw doomu aadama bi doomu adama bi accepté ko ndax yàllaa ko teg yonentu yàlla Yuusuf mu lan la ko yàlla tegee natt viol lañ ko giñ ah waaw ba mu génne yàlla yokkul garaatam def ko ay dëtt def ko nangam ak nangam ba mu dem ba ki ah sëñ bi kon yàlla bu tegee nit nattu ñu dëkk ci dëkk bi te door bu dul dara sax bu dee benn fan sax liggéeyal na ko réew mi si naka waaw barki démb continuer si wut fii ay mbëru làmb jox leen fi teg fi 10 millions pour mbër yi gën a am gis seen bopp ci bopp bi biñ téye woon làmb ji làmb ji doxul am na wala amut waaw loolu di def jàppale sa réew prison bi bëri na ay euh, affaire yu ñu fa def ay ventilo ay euh, kaki yu ñu fa yokk moom moo ko fa def di loolu du jàppale sa sa sa sa réew. kon de xanaa moom. waaw xaaral rek déglu ma rek. non dañuy waxtaan ay affaire du tang dama lay wax nit ki tay eh, man nga nit am sa alal di dur say alal te doo ko bokkat askan senegal waye lu mu am ci alalam rew mi la ko bokkal. Tiwaawan Kaolack lay ñëkke sax bi ñuy eh, def eh, pour sen affaire juma bi 10 millions dafa joxe àddiya biñi wax pour affaire juma bi. Tiwaawan bu gàmmu jotee day yóbbu ay nag yóbbu xaalis bu takku yoon yoonu seexul xaddim jii tamit bu bis bi jotee kenn mënu ko ci man mii jox na ma koppar ba tàyyi pour yóbbu ko ci liggéeyal sëñ Saaliw loolu laa mos a lekk ci alalam te alal yi sax lekkuma ko dama koo jël liggéeyal ci sëñ Saaliw mais dooraa doora nii rek mu jox ma ko ne ma lii maal barke leeru alxuraan bu amee yàlla naa ko fekk jëfam la est-ce que comprendre nga. Tiwaawan pourtant ñu bari dañuy jàpp ni xaalis bi. da koy séddale yéen ñi nga xamante ne boo amee kaamil nga indi ko ma waat ko boo euh, amee kaamil xam nga man man ay Dubaay ak loolu loolu sama nga ñu nekku ci. loolu moom la concerné bu ko neexee jël xaalisam sax wër ci mbedd mi fu nekk mu teg fa un million loolu moom la concerné mais dama ni man délégué Amar lu tax ma jàpp ko fonk ko tamit liggéeyal Serigne Saliou la ma fekk dooleel ma ci. te liggéey Serigne Saliou ku ma ci fekk dooleel ma fonk la respecté la naw la beneen bi fi mu teg son excellence président jàmm réew kese mais quand on door a woo ma nii yëkkati alal ne ma lii maa ko jox billahi wallahi wa taala musul am fu xel kom jotee mu wo ma téléphone yëkkati koppar na ma liggéey dugaloon ma ko ci liggéey seigne Saliou wa koku bu ta bu ma amee jafe-jafe nag kenn ko gëna sonu sama jafé jafé bu mujj bi doro nekul Sénégal ngi woon mais ma ngi mel ma ngi Sénégal lu ne mu daj ko fu ne mu woote fa ba sunu borom defal ma tawfiq wa koku bu amé jafé jafé ma tok na tuddu man na fekk hein d'accord benen bi dama non wax tay yeggale wu bi Serigne Mountakha mbake di wote ci université bi 11 millions la fa yóbbu. wa lu dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan wa dama lay wax rek pour wax la ne mom alalam xomu fu ko mën di jëlee concerné wuñu waye lu mu am rek bokku nako rew mi. lu mu am bokku nako rew mi jënd na fi ay moto pompe centaine de moto pompe yobbu ko ke serigne Mountakha. d'accord léegi yow keroog si bi kérok si moto yi mu joxe boy booy Pikine fu ko jëlee. doro moko jox ay moto ne ko joxal boy ñu liggéey wa mais loolu ñun tay ji loolu lañ gis ci mom lamuy def nak fa muy jëlee xaalisam la muy la muy liggéey loolu ñun concerné mu ñu loolu sunu ngañ nekku ca waaye am nañ sañ-sañu ñaan ki mu amal jafe-jafe am nañ sañ-sañu ñaan ki nga xam ne mooy fii toogal tey justice pour li nga xam ne moom yomb na ci ñoom te ñu am ko te doole jooju ñoom la ko yàlla jox ñu bàyyi ko mu ñibbi këram. ñu bàyyi ko mu ñibbi këram. nañ bàyyi yoon mu def li nga xam moom mooy. mu que est-ce que euh, boobu ba tey euh, ko wala nga am ay information par rapport ak ki nga xamante ni moom moo ko porte plainte monsieur Sow ndax euh, jokkoo nga ko wala xam nga ay projet pour négociation. bi nga xamante ni moom ngay ñaan ngeen man nag bi ma démb demoon naa gendarmerie parce que 17h ba 21h maa nga fa. maître El Hadj Diouf génnee ne suba day dem jàkkaarloo procureur ci laa taal sama oto ñibbi. bi bi ma xëyee tey damaa yeewu takk dem falaa fekk son excellence président Diagne réew mu toog ci oto mu leer na ne kii boo ko xoolee xam ne nelawut ndax moom buggul ndeysaan nitam ko am nitam bu am jafe-jafe moom ma demee tey wax dëgg yàlla gis naa ko ci bureau ba ci fi mu nekk ca ca fañ ko di kaaf boo ko gisee da nga koy ñëwantal ndax nit nag wax dëgg yàlla boo nee jàkk nit ki da xam ne kii nit ku baax na boo ko xoolee tag rek bu fekkee ne am nga am nga xolub yërmande nga am doo fa sax bëgg a taxaw di waxan moom ndax da koy ñeewantal. ah seen nga ko kon. déggoo koy ñeewantal ñeewantal gi mooy lan tey kii ñu indi fii fii bari nañ fi ñun fi indi moo leen daan dimbali. dégg nga wax baax bu baax. ki ñu indi fii bëri nañ fi ñun fi daan indi moo leen daan dimbali di leen fayal ay avocat man ñaata détenu la ma door la ma door a wax ma génn seen tur bi ma nekkee ci jeel bi pour mu fayal leen ay avocat ñaata détenu la bu ma ko doon wax du ma fi jóge te détenu yëpp boo bëggee ma woo leen ñu def émission ak ñoom te yëpp dooroo leen fayal avocat pour ñu dimbali leen bàyyi leen ndax dañoo naroon sànku ci kaso bi amuñu avocat man loolu laa xam ci moom bi ma demee nag tey wax dëgg yàlla information bu ma la mën a wax lu dul lan toog nañ di déglu ki nga xam ne mooy mooy moo di procureur nga xam ne ndeysaan ku ko xam xam ko ci xarañte li muy liggéey ku xam-xam ne ku fonku limi liggey la ndax fonku ko at man ko at respecté ko at fonku dooma at yee tax ñu tek ko fa tok nañ ba déglu ko ba ngon gi jot ñu ni retour de parti lolu nak moy procureur ci bopam moy jël ay décision ci mom bu ko doy baye da koy en tant que na ne civil bi ñëw na waxuma nak ne parti civil bi bu baye procureur doy baye dedet procureur mom bu parti civil baye yon tamit man na def liggéeyam waye ñu ngi ñaan li yoon liggéeyam mu war def ci mom muy nek liguey bo xamanteni ni que liberté lay doon ci mom fi ne daal yéen da bëgg mu génn dellu këram. nag ki waaw parce que amna genre euh, amna amna amna lo xamne tay ji bo amé ñun dañu wara mëna ñaan nit ki pour yoon bayiko mu ñibi war kërëm ko xamne kilifa lu mënu réer kenn. mu mënu réer kenn bu ko yoon soxla mën nañ ko jëli ni mu gëna a kon ñu ngi ñaan ñi nga xamne ñom ñoko téyé muy perte civile bi ki nga xamne moy modi kilifa gi di procureur.

incha allah alors euh, euh, chers internautes si vous venez de nous rejoindre ñu ngi ak toog ak ki nga xam ne mooy délégué Amath pour waxtaan ci kaaw Doro Gueye arrestation Doro ah, Gueye. ay di déglu fekk alors euh, baal baal jàmbur yi. dañoo wax li nga yow sa xalaat nga wax. parce que li nga amoo ci doo ko tee mais damay ñëw rek ci beneen point bala maa bàyyi sama naataangoo yi ñu laajte ñoom tamit li ñu bëgg a laajte. muy soxna ki nga xamante ni moom mooy Doro di Clara dañoo dégg ni dafa am ak altercation ki nga xamante ni. moy mooy euh, ay dara bi ñu jàpp ni mom aussi dooro da ko tak jabaru jabaru jabaru dooro la ñu ni dañ